avec euh, Fawzeyni heureusement qu'il di laa donc mu ngi noonu jotoon nañu sax xaw a tëj émission bi mais comme agsi nga sant yàlla ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk yi bu ko defee ñu dugg ci secret yi. c'est pas méchant. a moo tardé. tardé naa bi léegi liggéey bi. di siyaare ñoom koo xam ne rek da ngay bàyyi xel émission bi chaque euh, mercredi di ñu topp ci secret yi. alors ñu bàyyi la nga dugg ci secret yi waaw xam naa tey secret yi di indi sax euh, lu askan wi di laaj la euh, ci ñi nga xam ni dañuy def nit ñi lu ñaaw ñi nga xam dañuy dañuy liggéey nit ngir tàqale ko xelam. wala ñuy liggéey nit di ko tàqaleek bërëb ba muy liggéeyee. wala ñuy liggéey nit di ko tàqale ak maanaam taraangaam loolu am na euh, loolu nag am na ci dëkk bi bu ko defee alxuraan indi na luy tax yàlla musal la ci loolu nga xam ni nit ki bu defee loolu dana yàq alalam wala mu këpp ci kawam kiy def loolu nag defkatu lu ñaaw la ki koy def ki ki koy defloo ko koy def ñoom ñaar ñëpp ñoom ñëpp ay def defkat lu ñaaw la waaye aar sa bopp ba ba nga xam ni lu waay jëf ci yow mu këpp war ci kawam loolu wàññiwul dara tey nag ñu ñëw ngir baaxe loolu askan wi jële ko ci alxuraanul karim ah, ki nga xam ni ah, dafa dañ koo tooñ ba pare bëgg koo néewal doole ndax léeg-léeg nga gis ni tooñ la ba pare yóbbu la ci bërëb téele fa maanaam tëjlu la fa wala nit ki tooñ la ba pare tëkku la tey nag ñu indi kayfiyaat bu am solo ci lu mel noonu ki nga xam ni nit da koo tëkku te mu wóor ni la ni tooñoo ko kuy tooñ nag yàlla du la faral waaye bu la wóoree ni tooñoo ko dangay ngay bind lu suratul mursalaati wal mursalaati nga bind ko benn yoon ba mu jeex su ko defee nga def ko saafara saafara soo su nga boole koo xeme xeme waaw saafara si dañ ci def xamee bàyyi ko ba mu seey nga sangoo ko ñetti fan maa ngi giñ ci yàlla subhanahu wa taala loolu nit ki bu ko sangoo ku jéem ci moom dara moom mi ko sangoo dana taxaw ci kaw la mm. moo tax soxna Aïssa du ñëpp la ñuy liggéey dëgg ki nga xam ne daa dem di liggéey nit moom bakkanam mu ngi jox ko tigete parce que kooku bu fekkee jëfa jëfandikoo na bu fekkee jëfandikoo na yu mel nii Euh, ka ka ngay liggéey yow li ngay liggéey mën naa dalaat ci sa kaw. moo tax bari na koo gis ni dañ koo liggéey fekk moom moo doon liggéeyaate la mu doon liggéeyaate këpp ci kawam. waaw ba tey surtout kaafiroona na xul waaw soo ko bindee juróom-ñaari yoon nga boole ko xali sawara juróom-ñaari xali sawara nga jël xal yi rek dugal ko ci saafara si fay nga sangoo ko liggéey bu nekkoon ci sa yaram dana toj liggéey bu neewoon ci sa yaram nga xam ni bokk ci woon nag koo defoon ci yow insha allah rabbi boo ko defee da nga oyof toll xul yaa ayyuhal juróom-ñaari yoon nga boole ko juróom-ñaari xal sangoo ko day dindi liggéey de de da ngay fay euh, ñuy bind alxuraan ñu bindal la ko <laughs> ba tey bu fekkee da am rab. waaw bëgg a tàqali ko ak moom. rab ga daa mel ni fi ne nii ñëpp am rab. Pape Malick daa da ngay bind wala ngeen da ngay <laughs> da ngay bind sooratul faatiha muy alhamdulilahi rabbil alamin soo noppee nga bind sooratul xaariyatu alxaariyatu benn yoon boo paree nga bind alheekumu taqaasu xataa zurtumul maqaabira waaw boo paree nga bind isa samtu kuwirat iseen ni joom inkadarat bu ko defee nga boole ko sungufu rëb-rëb boo demee ci ñiy jaay sunguf am nan ko sunguf rëb rëb bu ko defee nga sangoo ko loolu moom lu doy waar la ci wàllu rab dañuy nit ki sax bu doon rab yi buñ ko doon daanuloo hmm. fa muy daanoo boo ko këppee insha allah rabbi la ko doon tàqalee xelam dina ko bàyyi bu fekkee lu jëm ci wàllu ku ñuy tooñ maanaam njëkteef dafa am nag nit ñi nit ñi yemuñu maanaam nit ku setul hmm. léeg-léeg nga gis nit koo xamante ne day tawat ñu ni saytaanee ko jàpp hmm. wala nga gis ko xam nit koo xam day tawat naan ñu ngi nii nangam ak nangam di waxtu bu fekkee dangaa bëgg a xam ba xam saytaane ko jàpp bindal sóoratul buruuj wa samaa'i saatil buruuj ba mu jeex nga def ko téere téere tànk nga takkal ko ko ci tànk bi jamono bi mu feebaree bu fekkee saytaane moo ko jàpp wala nit ku setul maanaam foofu la koy bàyyee parce que loolu nit ki mënu koo def téere tànk Euh, di ànd ak saytaane ndax. téere boo ban la koy def euh, càmmoñ wala bi. Mm. nit ko tawat nga bëgg a xam ba xam saytaane ko jàpp rek defal ko loolu. di wax nit ñi euh, kaaraange dafa baax def ay ay muslaay loolu moom fi ko fekk fi koy bàyyi am na ndomba goo xam ne soxna Aïssa. Mm. man maa ngi koy joxe. ndomba gi nag bokkut ak wàllu mag mag ñi di ko wàllu mag amaana beneen ndomba boo xamante ne wokkulam la tudd. am xam nga li tax ñu koy wax wokkulam hmm. dañ ni soo ko takkee lu wokk mënul ci ab lam mbindeef du ko man ci yow xam nga tey boo takkoon sa lam di ko wokk bu sawee dammul sa baaraam dammul xam nga lam bi du lam ñun ndomb googu boo ko takkee noonu ngay muccee ci ndomb gi ki koy ëw du wax ñetti tëjukaay lay am booy dem ci mbooloo dangay takk ñetti yëpp soo demul ci mbooloo nga takk nga takk nga takk benn bi boo ko takkee di nga mucc ci rab mucc ci seytaane mucc ci njëkteef mucc ci bët bu aay mucc ci làmmiñ waay ku la liggéey ak lu mu bari bare xam-xam insha allahu rabbi la mu liggéey noonu lay këpp waate ci kawam parce que Sénégal fii da ngay liggéey ne ci sa bopp dootal kenn am ñoo xamante ne ñu ngi sa ginnaaw di la yàqal lu nu am financé ko ngir bëgg nga yàqule moo tax nit du bàyyi boppam noonu mhm. waaw te yàlla tamit dafa maandu euh, léeg-léegi fi may daaneele sama kàddu léeg-léegi nit tooñ nit euh, sunu borom seetaan mhm. mu mel nii da koo da koo gañe mhm. ki tooñ dafa gañe ndax àdduna yàlla du ko amalul solo dëgg la danaan comme samay jaam lan te àdduna amul solo te kee bàyyi na boppam noonu naa leen seetaan rek bu ñëwee ma àtte leen bu ko defee yow mi nga xam ne yaa bëgg a mucc tey mucc ëllëg yow yaay góor góorlu ci jaamu yàlla ngir mucc ëllëg waaye yaay góor góorgóorlu ci moytu ak lépp loo xamante ne dana tax aaru nga di ko def tey moytu tax xool fi ngay teg sa tànk te bañ a tooñ. am na solo incha yàlla mën na laa defal. Pape tu avais une question. Ah, bon la sax wala euh, xam nga suñu wax gëm yàlla. Mhm. moom mooy euh, croire en moom mooy par exemple toute croyance bu ñu mënti jël nga tegee ko de bord. par exemple man gëm naa yàlla moom mooy yenn affaire mystique yi. du ko sóoraale yenn affaire yi ñuy def. ay euh, nit ki lu muy def ak lu mën def man lu ma ko sóoraal parce que man gëm naa yàlla lu mënti nit lu mu mënti def lu mu mënti gis damay jàpp ne man dama gëm yàlla gëm yàlla moom moo lay renvoyer si lu mënti xew yàlla la lu mu mënti dal tamit yàlla la loolu mooy gëm yàlla et puis alxuraan sax moom moo moom moo moom moo wax loolu mais est-ce que ci loolu par exemple jullit bi noonu la war a def je pense que sax même yeneen yi c'est comme ça euh, mën nga war mu war nga war nañu mën a sukkandiku ci par exemple euh, bon est-ce que mën nga ma defal diw lii wala mën nga ma wala mën nga ma mën nga ma ñaanal fii est-ce que par exemple ku gëm yàlla war na mën a def loolu su fekkee ne à la base euh, jullit bi moom dafay dafay concevoir rek lu xew rek yàlla la waa xam nga dafa am aliwe joo xamante ne lu ci seen borom bind mën na koo faraat am loo xamante ne lu mu ci bind dootu ko faraat aliwe juju suñu borom mën na cee bind nit ki diw bis sàngam lay faatu. waaw diw bis sàngam lay faatu. waaw xam nga suñu boroom mën naa bind lool. Mm-hmm. nit ki xëy saraxee mu fanqal ko loolu. Mm-hmm. yàlla far loolu. ah wala diw bis sàngam lay faatu ñu ñaanal ko yàlla suñu borom nangu ñaan googu waa ji guddaat fan. moo tax nga dégg ñu dew nit da waroon naa faatu ci feebaram sàngam waaye da cee jugaat nga gis koo xamante ne. fa mu aliwe ji suñu borom bind ni diw tey la faatu kenn mënut a fànq loolu. kon da ngay weddi le fait que ñu wax ne nit ki euh, bu génn bu ñëwee àdduna euh, ba durant trajectoire am si àdduna yëpp maanaam lu muy dund yëpp c'est écrit d'avance kon da ngay weddi loolu. nit ki maanaam mën naa weesu bis ba mu war a faatu mën na ko weesu. am na koo xamante ne moom loolu alxuraan moo ak sarax loolu loolu yoon bi ko wax bu fekkee maanaam nit ki. day wax lu am solo fekkee nit ki bis bi mu war a faatu. Hmm. du ko weesu bu kenn ñaanal kenn ni ko yàlla nga gudd fan. ah ëpp naa bu fekkee nit ki bis bi mu war a faatu du ko weesu. kon jarul ngay ñaan. Hmm. naan yàlla naa gudd fan bis bi war a faatu yàlla bind na ko ba pare. d'accord d'accord maanaam ñaan dafa am suñu borom di nangu moo tax nit ki ñu koy ñaanal naan ko yàlla nga gudd fan mu naan amiin. Hmm. bu fekkee maanaam nit ki yàlla pare na ci moom bis bi mu war a faatu la war kon jaratul kenn di ñaanal kenn. kenn ku ci nekk na bàyyee boppam ak yàlla. d'accord te ñaan yonent bi da koo indi. adduwaa u silaahul muminun adduwaahul muqul xibaadaati adduwaahul huwal xibaadaati mu ni adduwaa u silaahul muminun mooy ngànnaay jullit adduwaahul jaamu yàlla adduwaahul huwal xibaadaat mooy dëgg-dëgg jaamu yàlla. am na jaam ñoo xam ne bu ne woon yàlla bu saa taxaw sax di nga di gis sëñ Sàmbay di ko wax sunu borom fomp sax am na jaam yoo xam ne bu ne woon yàlla baalal iblis sax yàlla baal iblis. suuratul yaasin yonent bi nee na boo xëyee jàng ko mu segg mbooleem yu naroon a xew ci bis bi yu naroon dal ci sa kaw waaw. kon yow fiq ngay wax te man. alors Keyna ñu bàyyi la nga poser ay questions. rapidement non mais li nga wax oustaz fiq la mais <laughs> man dama am benn question bu ma doon poser dama nga yëg si si sa jàngale bi nga ne am na téere boo xam ne buñ koy ëw pour téere bu lay aar buñ koy ëw ki koy ëw du wax. cest à que moom dafay noppi ba nga ëw ko ba ñu ëw ko ba pare mu lii léegi nag ki nga xam ne da koy ëw bu nekkee dafa bari wax nag donc cest à bu waxee rek affaire ba toj na. maanaam uude yi. <laughs> uude yi tamit war nañu. uude yi ëw uude yi ëw ñu bari dañuy am xam-xam. Hmm. dëgg laa wax. moo hmm. tax ñu naan boo boo leen di ëwloo sax del toog ci seen wet ndax am na loxo mun ko tàllalee bu doonul ku jub mën na koo jël takkal ko wut ëwal la leneen jox la ko. mais audit dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg maanaam du doon neen ñoom dañuy tàmm xeeti gàllaaj yooyu am na gàllaaj yoo xam ne boo koy ëw doo wax bu fekkee uude bu yàgg ëw la moom lu dool dool dool kéemaan ci moom yaa ngi dégg te ndomba diggante bi nga koy ëw yàggul day jara yooyu ñu koy ëwlu nga toog ci wetam mhm. di ko surveiller nit bu ñëwee nga ne ko daa jàpp mu bañ a wax mu bañ a wax naam daa war a kii daal ci instant waaye ndomba googu fukki kiloy poobar lañ ciy saraxe bala nga koo liggéey. lan poobar. loolu boo ko takkee noonu poobar tànge ah, ku géem ci yow noonu lay tàngee jër ci kawam. Hmm. xam nga ndomme gi lu koy toj. Ah. nga takk ko di sëy. man dama sama ku ma jox gaalaaj dama lay wax li koy toj nga takk ko mu ne ci sa ndigg ngay sëy hmm. ngay góor ngay jigéen boo defee loolu ndomme gi dana toj. Ah. waaye yaa ngi koy takk te sëyoo maa ngi giñ ci yàlla. loo waaye jéem ci yow di ko rombaat di ko yëram. jërëjëf. waaw Kajoor. incha allah man moom sama arme si si noonu mooy. di ko yéene lu baax rek. waaw quand on te gifle là tu tends l'autre joue. muy gifle rek bis bu yàggee. day gis lu koy gifle du te du xam lan. mbaadu yàlla day àtte dinaa la tontu foofu. Mm-hmm. gis nga noon mën nga koo yéene lu baax ndax ab jullit ñëpp la war a yéene lu baax. Mm-hmm. waaye nag yow war ngaa mën a jóg ci sa bopp. parce que boo ko yéenee lu baax dëgg la mu jéem ci yow fekk amoo kaaraange mën na laa faagaagal. dëgg te loolu amul résultat. Mhm. léegi nag lii du pour yow nga def kenn lu ñaaw. mais pour yow xeex sa bopp la. Mhm. mi ngi mel ni oto bu am baaraas ku ko mbëkk yaay yàqu. Mhm. waaw loolu loolu lay jariñ waaye ab jullit moom ñëpp la war a yéene jàpp. jërëjëf am na solo euh, ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw hmm? xanaa li ci xaar yooyu. même dafa nekk en forme tey je crois moom. waaw waaw waaw remarqué ngeen. tey moom waaw listixaar yooyu. wala nga def euh, damay damay dikkal avant mi waaw na nga dikkal média training quoi. damay damay dikkal. day dikkalee daal ah, boo gisee tey bindu ma sax dara. waaw da nga def média training entre temps. c'est-à-dire da nga demoon fii ñu def la caméra ni ngay waxee. <laughs> dégg mu ne la day dikkal. <laughs> ma ko laay. naa moom en forme quoi ba eh? doo nekk da nga war a nekk en forme. Eh, waaw dëgg la nag <laughs> dëgg la. non mais yeneen émission yi da ngay wax boo jeexal ñu naan lan la wax. loo wax li wax nag. dayoo kenn loolu su su ko defee. xëy naa dikkale baal jàmbur. su ko defee ni ma ko doon waxee képp koo xam ne dangaa bëgg a listixaar listixaar lu say mbir. Uh-huh. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ab jullit at mu we maanaam at mu ne war na cee listixaar lu uh-huh. wala juróom-benn weer yu nekk listixaar nag du seet yi ñuy def. Hmm. seet ci pitaaw dafa araam neexut a wax Sénégal nag. la seet ci pitaaw dafa araam yàlla rëbb na ki koy def rëbb ko koy def loo. listixaar moo dagan ah bon waaw listixaar looy ah, fanaanoo lay doon boo xëyee nga wax nit ki li muy dund ak li ci kanamam ak jafe-jafe bu mën a ne ci yaramam bu fekkee dafa am ñu koy ñu koy ñu koy fexeel bu fekkee li muy bëgg a dugg da ko war a xool ba xam dina ci am résultat wala du ci am résultat képp koo xam ne nag dangaa bëgg fekkee tawat danga nga koy listixaarlu bu fekkee tukki da nga koy listixaarlu bu fekkee sanc da koy listixaarlu lu mu mën a doon tabax bu dee tabax da nga ko war a xool tabax daa war am ñaan yu fa jiitu bu dee mariage da nga koy listixaaru lii daal nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko indi. képp ku ci tënku mais je suis pas ah, mën ngaa bañ a jërëjëf merci beaucoup oustaz. ku bëgg loolu nag émission bi jeex na. nañ ko tey Pape ñu bàyyi li nga tàggatoo oustaz ku bëgg ah. loolu nag daf may woo. 78 530 69 81. 78 530 69 81. merci beaucoup jërëjëf yaa oustaz ñu jaajëfal waa régie bu baax a baax wëz maa ngi jéggalu tey merci beaucoup Bamba merci Khady Babacar yéen ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal 10h di ngeen am seen flash d'information à 11h Maria dina ñëw euh, gunge leen ci mi-journée l'avant-première moom ak sa team quant à l'équipe matinale ba ëllëg incha allah jaa ngeen jëf merci.